asalaamaaleykum mbokki Sénégal démb lañu guddee ñëw Tiwaawan ñu ñëwee ñu ne bu ñu xëyee nañ njëkkee Njaasaan delluwaat Tiwaawan def lañ fay def euh, loolu ñu am ci mbégte waaye c'est vrai que da ngeen bokk ci réew mi seen njaboot nekk ci réew mi di participer ñoom it ci élection yi comme ñëpp moo tax it dañu leen cee war a boole pour wax leen aussi li nga xam ne lii ñun bu ñu yàlla tegee ci bopp réew mi ñu nam gannaaw cohésion sociale bi war a gën a renforcer ak coono yi nga xam ne coow yi nga xam ne bari na ci réew mi moom néega ni faw weer yu njëkk yi wala at mu njëkk mi moom da nga jéem a dajalewaat nit ñi région de Thiès ku ko xam ku ne xam ne euh, région wu bu diine samp tànkam la moo tax ñu bëgg a profiter ci occasion bi pour wax suñu yéene ci daara yi waxoon naa ci def naa ci sama programme ne bu ñu yàlla ma wax ko dama ne budget du Sénégal pour biy toppatoo njàngale mi mu ngi toll ci 945 milliards loolu nag ñu jagleel ko 4 millions ndongo 4 millions élèves ndongo daara yi yi ci école yi te am na 1 million 225 mille ci xayma ndongo daara boo xam ne bii état defu ci dara loolu moo tax ma ne woon su ma ñëwee ci bopp réew mi danaa leen jagleel gën gaa néew 60 milliards en 2024 60 milliards en 2024 dina mën a permettre ñu war cee mën a recruter lu bari ci jàngalekat danañ ci jàpp boo jëloon xaaj bi dugal ko rek ci recrutement pour jàppale ñi nga xam ne ñi ñooy jàngale ci daara yi mën nañ ci am lu mat 25000 jàngalekat yeneen 30 milliards yi ci des ñu dugal ko ci wàllu dëkkuwaay ak ci wàllu dund dana mën a permettre ñu soulager sëriñ daara yi dana mën a éviter également euh, taxawaalu bi nga xam ne bii xale yi dañ koy def di wut lu ñu lekk wala wut lu ñu naan ci biir réew mi te loolu jàpp na ne loo xam ne lii bu ñu ko xeexee danañ ko mën a réussir ensemble avec Serigne Daara yi. Ali Nguy Njaay de aksi